waaw li ñu fi dajale mooy euh, li ñëpp xam mooy feebar bi Covid 19 moo ñu fi dajale parce que xam nañ ni préfet wu département Mbour jot na jël ay ndogal ak comité de crise bi waxtaan ci ak kilifa yi ñu ñu arrêté activité marché bi ne serait-ce que trois jours dans la semaine maanaam marché bi day fonctionner ñetti fan mu tëj ñeenti fan su ko defee mairie bi ñoom ñu génnee lépp luy mbalit ñu nettoyé ba mu set. ñun brigade d'hygiène bi ñu jaar désinfecter au moins deux fois par semaine donc loolu ñu dajale fii tey bon matériel bi ñu indi dañu utiliser ay atomiseur mooy appareil yu mag moteur appareil moteur ak quatre appareils manuels électroniques. donc euh, moom la nekk utiliser un produit désinfectant pour au moins désinfecter milieu bi parce que marché nek na beureup bo xamni da fay dajale nit ñu bëri te nit ñi xamoo ko feebar xamoo donc euh, dina bax pour mun a rey yenn xétu doomi jangoro yi que ñu désinfecté ko donc bokku na ci xétu aar ar askan wi ci jangoro yi. brigade bi yeb la engagé hein brigade bi yeb la engagé à peu près ay 12 éléments plus. Euh, un euh, un élève sous-officier mu nekk mu ak man donc à peu près 14 personnes là engagé. non dañuy désinfecté pour le moment li ñu retenir moy marché Mbour ak quai de pêche bi donc rien euh, na peut-être marché central quoi marché central bu Mbour ak quai de pêche bi xëy peut-être ci yenn jamono wala ci yeneen fànn dinañ mun a yaatal ba mun a àgg ci yeneen marché yi ndaw ndawaan Limay, Limay, may li wax mooy effectivement problème mu set moom dafa nekk loo xam ni lu doy waar la lu am la fille nit ñang ci bay bay sen war mais dafa fekk ni aussi mëno dajal mais au moins les gens font des efforts ñu ngi jëf ay efforts té aussi set dafa nek euh, fànn bo xamni par exemple bo jëlé la gestion des ordures c'est une compétence transférée mairie mee ko yor donc nous, dañu nek ay services techniques nous am dañuy accompagner collectivités locales donc c'est vrai que ñu ngi def ay efforts mais des na ba légui xeyna ci kanam au fur et à mesure ñuy dem dinañu gëna a dinañ gën farlu dal ba nga xamni dinañ dépôt yu bëri dina disparaître. waaw euh liñuy def ni dafa dafa am place bu solo bu am solo ci prévention parce que prévention dafa am euh, lo xamni c'est des mesures de prévention individuelles manam ci nit ki la concerné mais lii ñuy def ni du ben nit mbolo bi yëpp la concerné parce que da fay ar environnement bi ñu ne Euh, day aar vraiment environnement bi ñu nekk donc fànn la boo xam ni volet la bu extrêmement important ci ci ci prévention. li ci sama xalaat bu njëkk xanaa dama ci am kontaan bu baax ak di sant di leen gërëm muy service d'hygiène ak maire ak préfet yëpp parce que feebar bi nga xam ne bii moom la yàlla dogal mu xew ci adduna bi képp koo xam ne kii ni ma ngay jog di la ci dimbali pour nga xam ne bii dana mën a fexe ba mu jóg ci réew mi. jóg ci àdduna bi kooku dañu koy dañu leen di sant di leen gërëm kon euh, bu fekkente ni bi waa service d'hygiène ànd nañu ak maire ak préfet ak ñi ngi ñu ko war a bokkal ñëpp ñëw di ñu jàppale ci li nga xam ne lii ñun ñoo ko ñoo ko moom muy lan muy marché marché moom kenn ku nekk xam na ni marché euh, commerçant yi ñoo ko moom ak mairie bi kon bu ñu bu mairie jógee di dimbali bu baax waaye mu wëlbatiku jëlit nag sunu bokk yi nga xam ni mooy waa service d'hygiène ci ndigalal préfet ñu and di ko liggéey liggéey bu rafet bi ñu ko liggéey dañu ci am noonu kontante rek di leen ñaanal yalla yalla yalla taxawu leen ndax wax deug yalla doon na nek lu ñu jafé lool waye yomb na lool fi mu nek ni amna naa lool nak amna bu baax waye li nga xamni li mom lañu jël tay ci KDP ci marché central bi ak KDP bi ak bi dëkk bi ma ngi sakku suñu démé ba fan yi marché yi ci des suñu ko mënee nañu leen ci fexé ñoom itam boole ndax suñu ay njabot ñofa nek te comme ñun ñoo njabote ñep li ñu war ci fi mom lañu war mo ñu war ci fele ko xamni ki ni yalla dafa dogal nga dend ak mom niko defar dindil li dan la doon def non civil mënul dindil bopam il faut que ñom ñi nga xamni ñoo fi nekkal état ñoo mëna ñëw dimbali ñu ci loolu mu mëna dañ perte bi mënuñu ko xayma ndax perte bi fay rëy waye lim loolu du pertement man ci sama gis-gis parce que su fekkente ni fexé nañu ba fièvre bi dugg ci fi kon mënañu nañu ay at yo xamni yi ni duñu liggéey kon ñeenti fan yooyu metti na gaa parce que am na ñoo xam ne ñi bu ñu xëyee te amuñu fii la ñuy wut seen dépense ci marché bi kon metti na ci ñoom waaye li muy metti metti nag ñu jéem ko muñ te feebar bi dem man moo ma ko gënal